98.2, la religion et la culture au service du développement. Le peu de chacun de nous pour le bonheur de tous, la solidarité à l'état pur. Safina, système d'appui à la formation et aux initiatives nouvelles en Afrique. Safina FM, retour aux bonnes valeurs. Formation et éducation, éveil des consciences. Notre credo, quitter le bien pour au meilleur.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 ba 10 heures juroom ñenti waxtu jàpp fukki waxtu kon an nasiha manam di lay biir kep ko xamanteni dégg nga émission bi di nga ci jariñu ngeen ànd ko ak seen mbokk alxaaji Massyla Kane di borom xam-xam tay joxe xel mu rafet tabarakallah ci lay biir an nasiha fi lay amé bu ko kenn di tardé na ngeen ko bàyyi xel alxames lay doon diggante 9h ba 10h ci rajo Safina FM 98.2 assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh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 ala man bai nuuri wal hidaaya sayyidil wujudi wa alami shuhudi sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala jamici aalihi wa asxaabihi wa man nahaja nahjahu ila yawmi diin bokki jullit yi nuy déglu sunu kàddu di bawoo fii ci rajo bi ñoo wax Safina FM 98 point 2 ci Scat Urbam tabarakallahu ñu ngi nuyu mbooleem auditeur ak auditrice yu rajo bi ak soppe yi la mbooleem kuy déglu rajo bi ñu ngi lay nuyu mbooleem ku ko dégluwul waaye yaa ngi koy dégg ñu ngi lay nuyu di la ziar di ñaan yàlla yàlla may ñu dégg ak topp di beral nuyoo kilifa gi nga xam ne mooy boroom rajo bi muy Thierno wër a Bane moomu ko sax xeet wee ko moom waaye ci loxoom la jaare ñu koy nuyu di ko ziar tabaarakallaa di nuyu suñu mudira muy suñu directrice di xaaja ñu ma ba di ñaan yàlla dolli ko tawfiix eh, tabaarakallaa di ko am yar di ko xàmmee lii e, yenent bi wax ni annaasu kulluhum halka ila al wal aalimuuna kulluhum hëlka ilal muxlisuun al aalimuuna kulluhum hëlka ilal aamiluun wal aamiluuna kulluhum hëlka ilal muxlisuun wal muxlisuuna ala xatarin azim mu ni nit ñëpp tuskare nañu ba mu des ñi ñi ñi ñi xàmmee ba mu des ñi xàmmee te ñu xamé ñëpp kéré nañu ba mu des ñi jëfé lañu xamé wala lañu xam té ñi jëfé lañu xam sax kéré nañu lu dul ñuy sellal la jëfé té te jëfé sax bu ñu toogee ci nan du toj ndax dañu xamul kañ la soppi motax am ci dal ak yar lu am solo la mu nekk ko am yar ku mu dal tabaarakallaahu nit mën na am alal ñu boole ko alalam toroxal nit mën na am xam-xam ñu boole ko xam-xamam toroxal waaye diw yaru na ba ñu toroxal ko lu néew am na di nuyu personnel bi koy jàppale yëpp tabaarakallaahu ci kaw ba ci suuf góor ak jigéen di jéggulu retard yi nga xam ne tabaarakallaahu wala absence yi nga xam ne am na ba ñuy baamuwaat sunu kàddu du dara lu dul al mashaaxil alzamaniya wala boog al mashaakil alzaman ñaar yëpp mashaaxil ak masaakil yëpp ak it ay xew-xew jamono di jaale mbokk yi ñu fi am mbokk mu wàññeeku ñëpp ñu jàll leen particulièrement Serigne Abdoul Aziz Seck di suñu wëlëre di soppe xadara bi yëpp ak taalibe yi yàlla dogal mu bawoo fi dem barzax ñu ko yàlla yërëm ni doomu góor gi Maxtaar Seck di koon ci gannaaw raay di sunu wëlëre tabaarakallaahu ak sunu <clears throat> dëkkandoo alxaaji Charles Fall moom tamit tabaarakallaahu yëpp di ay mbokk yëpp daje woon fa tabaarakallaahu ñoo ngi koy jaali bokkam di ko ñaanal yéen yàlla defal ko jàmm ca barsax te yàlla buñ yàlla nattu gannaawam tabaarakallaahu ak euh, sunu yaay jële ñu dencoon démb ci tàkkusaan mu soxna nyang ñang tabarakallahu yaayu waa pikin yëpp ne yàlla defal leen ñoom ñëpp tabarakallahu jàmm ca barsax di leen jaal xalifa njoon mi nga xam ni xarit la ci Abdou Aziz Seck moom tamit ñu ngi ko koy ñu ngi koy jaal Abdou Aziz rafet lu taxawaayam yooyu rek moo ñu gàllankoor ba jamono yëpp eh, mënuñu teew loolu yi tamit ci dund gi la ànd ñu dellu siwaat nag ci émission bi ay nasiha muy laaye biir addiinu nasiha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku amoon tolérance la ci wàllu jàngaleeg yee yenn saay mu tàng jër jër jër waaye yenn saay nag mu sedd guy nag lu siraaji maali wax ni wa bi wa bi xaylihi wa bi xayrihi jalabal wara yenn saa yiw gi rek yiw gi rek yiw gi rek di la raay di la mocc di négocier ak yow ba nga ñëw ci li mu bëgg yenn saay nag bu demee ba xam ne yow mi baadoo la nga raay mënul ci yow dara nag mu dóor ko fañ waaye tabaarakallaahu émission bi di laaye biir yonent bi ci tolérance sam boobu ko yàlla defal nga xam ne daanañu jaamaarloo koo xam ni jaasi rek a jekk ci moom mu leen téye leen jaas si bàyyi mag moom bu waxee moom ba àgg rek kooko tuub te façon boobu la jamono laaj yàlla dogal itam tabaarakallaahu ñu war a gën dolli waxtaan ci bokkoo gi nga xam ne am na ci suñuy diggante te mbokkoo même bu fekkee mbokkoo ci wàllu deret amul te mbokk ci wàllu deret war a jur rafetal jarna diri relation yi ba mu dugg ci cadre mbokko ci deret su ko defee bokk am yéenente lu rafet bokk jëflente lu rafet bokk dimbalente e tabarakallahu li borom borom bi tabaraka wa taala wax ni laa xayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna naas boo ko doon firi di ko taawil da ngay wax ni seen mbooloo yeeg seen daje yeeg moo xam daayira la moo xam association culturelle la moo xam association bu mu mën a doon waaye mbooloo fay daje bu fekkee ñett neewu ca rek yiw amu ca tas rek a ci jekk la xayra fi kathiri min najwahum illa man amara bi sadaqatin mbooloo moo xam ni ñu ngi jéem a connecté dara loo xam ne dañuy jéem a seet ca biir mbooloo ma wala ñi biti mbooloo ma te yàlla néewal seen doole ci ci ci maandoom ak xereñam ñu jël loola fexe ba teg ko ci seen loxo ndax ñu ànd ak seen sago ba mën a jaamu yàlla mën a dundandu nit ñi loolu di ci xalaat tàmbalee ko ci say jigañaale say dëkkandoo sa ñi nga bokkal mbooloo loolu tabaarakallaahu lu ama am solo la bu ca amul ci mbooloo rek mbooloo ma dañ ko war a dissoudre nee na aw maarufin ba tey am nañu wax ni mooy def njekk rek waaw def njekk def njekk foo toll yaa ngi jéem a seet nu mu gën a baax nu mu gën a rafete nga def ko boo ko delloo ci njekk it boo ko delloo ci cadre fexe ba xam fooy jaar sa borom ba jaamu ko mu bëgg ak fooy jaar àddina ba mën a jàmm ñoom ci nekkin wu rafet ak ànd bu rafet comme ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ittaqillah haysuma kunta wat bi alxasana wat bi sayi alxasana tamhuha wa xaaliqi naasa bi xuluqin xasanin ragalal yàlla foo mën a nekk te bu la yàlla nattoo ba nga def lu bon nga teg ca lu baax ndax lu baax la far lu bon la te nga jikkoonteeg nit ñi ci jikko bu rafet yooyu mën a dellu ci maaruf aw islaahin bayna naas muy ñetteelu étape bi mooy rafetal ak yéwénal diggante nit ñi e yéwénal diggante nit ñi boo gisee ñaar ñoo xam ne xëy na seen diggante rataxul te ratax ga rekk gën ndax bu ratax gi amee jariñante am nga sol sa dàll di def ay pexe ba fexe ba ñu joxante loxo joxante xol ànd loolu nag boo koy def day fekk yow nga tàmbalee ko ci sa bopp ndax boo dee jóg ne yaa ngi diggan ñaari diggante yaa ngi jóg pour defare leen jubale leen te yow ci sa bopp am nga fukk ñoo xam ne nii daanaka sa diggante ñoom yàqoo ngeen ba noppi te amoo amoo fulla amoo volonté wu taxaw dindi xeex loolu ba dindi ko xam ne àdduna amul solo su boobaa doo amati doo amati doo am diplôme bu la permettre nga mën a dugg ci diggante ñaar ñoo xam ne dañoo dëngoori di di wax tabaarakallaahu loolu mu ñett yooyu la xayra fi kathiri min najwahumu illa man amara bi sadaqatin bi sadaqatin aw maarufin aw islaahin bayna naas ñu ciy jàngale nag euh, loolu amoon diggante ñaar ñooñu ndax nit ki nga dëkkal sax eh, loolu war na ci yomb waaye tey boo seetloo koo xam ni dëkku leen xamu leen anaman ana yow nga taxawu ko benn xeetu taxaw bi seetloo seetoo ci dara lu dul yàlla ak yiwam loolu mooy li gën a jafe te loolu la ba almuhajirun wal ansaar def eh, sëriñ eh, sëriñ Mouhamadou Lamine Niang bu alaaji Tidiane Niang bu ndar ñoo ngi koy nuyu di ko ziar mom mi yëkëti mouvement tuddé ko muhajirun wal ansar xamna la tax mu def ko parce que mouvement la boo euh, euh, parce que mbolo la yo York xam def ci walu dimbalenté ak jaayante ñek jangal na adina bi yépp muy al almuwaxaatu bayna muhajirin wal ansar fraternité bi nga xamni doxon na digënté muhajirun ak ansar muhajirun moy ñi nga xamni dañu nekkon ak yonent bi fele ci Makka ah ànd ak mom ci mission bi gëm ko demb am fa seen alal am fa seen i bokk am fa seeni relation waaye ñu bundu xataal leen sonal leen lool lool lool ba yiwu yàlla ak ak ak mbaax ndigalu yonent bi sàmmale ko ko ak mission yonent bi jaral na leen ñu gedd seen i tool gedd seeni seeni jur gedd seeni relation laxas takk seen digg yenu seen i ëmb yu ndaw ànd ak yonent bi wut si madinatul munawara ndax gàddaay ndax rawale seen pas-pas ak rawale seen diine ak soutenir yenen tibi ñooñu moy al muhajirun fekk làmb nañu habasha dem nañ fa laqku ji fa ndax seen pas-pas mën a ñoŋ ah waaye daal ñu mujj delu ci wat bi ñu amee ndigal ci borom bi tabaraka wa taala ak seen kilifa yenen tibi sallallahu alayhi wasallam leen dal fuñ ñu la nar toroxale tuxul man gi na la xass dem madinatu munawwara biñuy ñuy juk jóg jëm madina fekk na Mus'ab ibn Umayrin ndeysaan nekkoon ku bëgg yonent bi lool sopp ko moom ci boppam li ñu wax wàllu décentralisation ñu di ko ñu di ko wax ci wolof yaatal moo ko jëkk def ci lislaam ndax bi nga xamee ni ànd naa ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yaayam nekkoon ku bari alal lool Mus'ab daf daan sol sol col mu rafet mu yéeme ndax yaayam dafa amoon ay moyens waaye bi mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaay ji def ko embargo ak ay bokkam nangu ay biens yi ñu amoon yépp bàyyi ko mu tumuranke ànd ak yonent bi waaye mu jaral ko ko nag am na sax bés bu ñu ñëw jub si yonent bi yonent bi jooy ndax booba ku xamoon Mus'ab bu jëkk ak bu solo ba romb la tey ji ànd ak yonent bi rek ànd ak yàlla tax ñu def ko lu metti loolu daal di nangu alalam nangu ay biens ba mënatul am sax mbubb mu baax mu sol benn abaya bu cëkk boo xam ni lima passé paasee yi sax wul yonent bi nak seen ko muy ñew yonent bi xol bi jeex mu joy daan ne xoolal rek ki ni mu meloon demb boko gisee tay and ak man tax ñu toroxal ko ni waye baxna waye Mus'ab momu ndeysaan bi mu euh, toge yonent bi mu ne ko man dal dama bëggoon nga yebal ma Madinatul munawara ndax dégg naa am na fa ñu la sopp ñoo xam ne xam naa ne xamuñu la buñ la xamoon gën laa sopp su ma ma wax leen yow kan yonent bi jox ko ci ndigal mu départ Màkka dem Madinatu Munawara fa la nekk fa la nekk porta à porte li ñuy wax prise de contact ku ci nekk mu gisanteeg yow ku mu dajal wax ak yow waaw ki woote ci màkka nu mu demee mun la nii la demee naa la demee lu wér la lu jóge ci borom bi tabaraka wa taala te itam koo koy woote du nitu caaxaan kenn mus koo xam ci fo kenn mus koo xam ci caaxaan kenn mus koo xam ci wax lu dul dëgg noonu la toppee porte à ba genn wàllu madina mokk rumbux moom Musab ibn Umayr bi ndigal li jotee suñu borom wax yonent bi nag pour mu gàddaay jëm madinatu munawara fekk na booba dëkk ba Musab defar na ko ci benn ci xasawaat yonent bi am ci xare boo xam ne ca ñàkk bakkanam moo di dafa am benn waajoor jaaseem rek di wër di wër ni soxlawuma benn bopp yonent bi rek laa soxla Seydina Muhammad ki ñu wax Muhammad laa soxla yore jaaseem di xandaalu waaye jaasi jég na muy xel na muy melxateeg na mu ñëwee Musab la mu ca tiit mooy kii bu da jóg yonent bi rek Eh, man na jël bakkanam te waa ji day wër waaye xàmmewu ko da koy laajte ku mu ci kan la ci ku mu ci kan la ci rek mu saab daw dogale ko ni ko man maay Muhammad rek mu daal di koy cor bopp ba dagg mu daal di daw daw wuti ak làngam rey naa ko rey naa ko rey naa yonent bi moom la mu jàpp mooy xareem jeex na parce que rey na ki mu soxla woon muy yonent bi fekk booba kenn jóg jaay bakkanam muy Mus'ab ibn Umayr joxe boppam ñu rey ko moo tax lu ñuy wax sacrifice ñetti sacrifice yooyu ngay dégg ñuy wax muy sacrifice de temps muy sa it sa bis sa sa jamono yëpp nga def ko ci benn cause wala sacrifice de bien wala sa alal yëpp nga def ko ci benn cause wala sacrifice de sang sacrifice de sang boobu nag la Musab ibn Umayr def ñu jël bakkanam keroog bi ñu koy war a denc te mu sol euh, abaayoom bu cëkk boobu ñu war ko koo yonenti war koo jullee ñu denc ko waaye bu ñu xëccee rek euh, abbaay bi pour pour suturaal ko. bu muuree bopp bi rek tànk yi ne ci biti bu ñu xëccee mu jëm ci tànk yi bopp bi ne ci biti yonent bi ne kon muur leen li féeteeg bopp bi rek ba mu daj yi ci des nag ñu bàyyi noonu ñu bàyyi noonu denc ko kooku nga xam ne mooy Musab nga xam ne moo xàll yoon woowu nag ba waa muhaajiroon ñi jóg jëm fële ca madinatu munawara ñu dàkkentale ñal takk seen i bagage yenu ànd ak yonent bi ñu leen di tudde al muhaajiroon mooy gàddaaykat yi ñi nga xam ne nag ñoo leen teeru muy al ansar mooy ñi xam ne ñoo nekk madinatu munawara ginnaaw bi am liggéeyee liggéey bu rëy boobu ak itam seen jikko yu baax yu ñu am ak doylu gu ñu doylu ñoom tamit bi ñu yégée ne yonent bi départ na mi ngi ñëw ànd ak ay doxandéem yoo xam ne bàyyi nañu fa seeni tool bàyyi fa seeni jur bàyyi fa seeni relation ngir rawale pas-pas ak itam mission yonent bi bañ a laal suuf waa ansaar ñooñu daal di taxaw tem ci ñii daal bu ñu dikkee wallaay duñ ñu gën a gore ndax ku jóge fa nga dëkk ñëw fekk si la am na noo war a doxalee moo tax yonent bi liggéey ci liggéey bu rëy nag waaw waaw yeneen yonent bi nekk ci seen biir tabaarakallaahu ak mbaaxam ak yiwam fexe ba jàppale leen moo tax ñu wax ni kaana mawqifu rasuli sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu almuhaajir wa ashaa mu ne kaana mawqifu rasul sallallahu alayhi wa sallam wa ashaabuhu almuhaajirin بعد أن تركوا وطنهم وخرجوا من ديارهم وأموالهم موقفا دقيقا يتطلب الإخلاص والتدامج ويقتضي أن يسود بينهم وبين إخوانهم الأنصار من تخوى ينتبه صلى الله عليه وسلم أصحابهم يوي nga xamni ñom la andal gaddaaye makka jëm ci madina bayyi fa seenum réew génn seeni kër bayyi fa seen alal nee na taxawaay la bu bu sew a sew a sew boo xam ni dafa ëmb ci sellal ak solidarité ak tabaarakallaahu jiital jëme ci ñoom ak bokkoo goo xam ni gu gu gu matale la mu ne bi ñu ñëwee ñoom waa muhaajiroon dugg biir madinatu munawara di ay gan mu ne wal ansaar hum alladina yatabawa uddaara wal iman min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim wala yajiduuna fi sudurihim xajatan mimma utu wa asruuna ala anfusihim walaw kaanat bihim xasasa mooy ñooñu nga xam ne nii préparé nañu seeni kërëg seeni lépp te avant ñooñee di gàddaay jëm ci ñoom cofeel lañu leen ëmbal ak bëgg leen bëgg bëgg lool nag bëgg yàkkamte gan gi ak si lool te amul lenn lu ñu dent ci seen biir loo xam ni tricherie la boo xam ne dañuy wane rek ni gan gi bismillah marhaban yàkkamte woon nañ la namoon nañ la te fekk fasuñu loolu ci seen xol loolu yëpp newul ci ñoom dënn bu sell ak yéene ju rafet lañ ci àndal ak gëm li ñuy def e donte amuñu ay moyens yu lool lool lool sax terewul jël nañu gan ñooñu teg leen fa ñu doon fa ñu fa ñu fa ñu tege woon ñoom ci seen bopp ñoom ñu toog ci suuf ku ci nekk la nga amoon mu gënal la préféré nga jox ko sa gan yooyu yow nga seet na ne nooy def taxawaay boobu nga xam ne waa ansaar def nañ ko ci wàllu dimbalent waaye jàngat biñ ci am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déplacement bi mu def jóge Madina jóge màkk jëm si Madina xam ngeen ni loolu avion xewul yoon woowu du palaasu ndox oto xewul gilem rek ka am wala nga dox digante Makka ak Madina ni mu sore nga xamni ni juróom juróom temeri kilometri danaka xawna ko mat ah ñu wara a nonu te avion amul oto amul di dox ak di war ngir lan ngir jëm Madinatul Munawwara pour ndigalu borom bi ak l'islam ñoom xolal bobu ciono bobu digante nga war ko dox te bu ñu ko xaymaa ca jamono yooye ni juróomi téeméeri kilomètre bu ñu ko xaymaa ci jamono yii nu toll ni juróomi téeméeri kilomètre boo ko seetloo ca jamono boobu ëppoon na ko ndax li ma koy ëppee mooy boo dee métre diggante Makka ak Madina jaare ci fi oto yi jaare léegi nii da ngay gis ni dañ ko bënn ay tunnel montagne yooyu nga xam ni boo ko bëggoon a wër boo ñëwee bu jub ko bëgg koo wër di nga dox lu war a toll ci presque dix kilomètres door a mën a wiiri pour dellu si waat sa destination léegi ñu bënn ko di ay tunnel boo jaaree ci côté tunnel yi noonu ci tali bi su boobaa ci lay doone e, juróomi téeméeri kilomètre mais bi tunnel yi amul tey boo ko xaymaa ci wiir yi nga xam ne dañuy ñëw ci montagne duñu ko mën a yéeg wala bu ñu koy yéeg dinañu yéeg ay ay centaine de mètres door a ca kanam wala ñu wiir yi boo ko doon xayma ca jamono boobu jàppal ni kon ëpp na juróomi téeméeri kilomètre dana war a mat sax juróom-ñetti téeméeri kilomètre ñu ànd ko di dox jëm si madinatul munawara ba ñu demee ba madinatul munawara ak diggante boobu ci wàllu jikko ak pas-pas ak taxawaay xëttale nañu diggante ñaari dëkk yi diggante boo xam ne matoon na juróom-ñetti téeméeri kilomètre fexe nañu ba tàncale ko ba mën nga koo waaxu ci waxit ndax jikko ndax mooy daanaka dootu dootu jarati ngay jóge madina di dem màkk di fa dara dootu jarati ngay jóge Makka di fa jéggi dara ndax fekk na ñaari ñaari habitants yi ñi dëkke Makka ak ñi dëkk Madina am nañu jaxasoo ak yéenente goo xam ne dem na ni ba léegi mel na ni benn dëkk ndax jikko ak jàppalante waa ansaar yi nga xam ne ñoo leen teeru taxaw ñoom ci taxawaay bu rafete noonu jàppale leen ah ba dem nañu ba àgg ci ku ci am ñaari tool jël nga benn ba jox ko waa muhajirun ci waa ansaar yi jël nga ko waa madina ku ci am benn ñaari tool jël nga benn ba jox gan ñi leen mu ngi noonu comme ñëw ngeen ci dëkk bi ay doxandeem amu leen fi dara amu leen fi cantine amu leen fi leen jël leen tool ku ca am ak jur noonu ngay def dem nañu sax ba xalaat sax ku ci yoroon ñaari soxna ngay préféré jël benn ba libéré ko pour sa mbokku muhajirun jël ko yonent bi nag moo leen ko tere ni leen bu leen ci loole boobu ndax dafay dafa dàqoo ngor ndax nekk nit yi démb mu bàyyi dundam bàyyi lépp ànd ak yow nga xëy xëy daal di koy libéré te amaana doyalul ci yi tamit jekkul yonent bi tere leen boobu façon waaye terewul bokk nañu seeni tool bokk nañu seeni e, alal bokk nañu seeni jur bokk nañu lépp e, tabaarakallaahu dem nañu ba tabaarakallaahu ña nga xam ne dañu jotoon a xam ci commerce tuuti. ñu defal leen ay financement jox leen ay cantine ñu nekk fa di liggéey ci diir bu gàtt gàtt ba am ci alal ju dul jeex ña nga xam ne bay lañu xaw man ñu jox leen ñoom itamit ñu bay ñu jàppale leen ci jiw ñu bay ba yàlla dimbali leen e tabarakallahu yonent bi nag wa kaana siyaasatu rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi hadihi zuruf alqasiya siyaasa alqaid almuhnik alrashid faqad amila على تنظيم صفوف المسلمين وتوكيد وحدتهم فربط بينهم برباط متين نانا بوليتيك بيغا خامني موم لا يونس صلى الله عليه وسلم نك مني تي بوبو لي مبير بو خامني بو ديفيسيل لا نينا بوليتيك لا بو بو جوبا جوبا جوب بو خامني آه، فخنا با جيفي تي اورغانيزاسيون بو خامني lëkkale na sàppey jullit yi ak dëgëral seenu bennoo daldi fasale seeni cat pas-pas boo xam ni bu bu dëgër la boo xam ni du fecceeku te mooy dafa jël ci ñi nga xam ne ñooy waa muhaajiruun mooy ñu ñëw mu seet ca ñoo xam ne ñu responsable lañu ñu am xel lañu ñu yeewu lañu te loo leen dugal mu réussir mu daal di seeti ci biir ansaar muy waa madina ñu ñu mel noona daal di leen di lëkkale kenn ku ci nekk mun la yow yow laa la sa morom laa laa la booleel mooy sa njaatige yéen ànd leen ngeen seet nu ngeen organiser seen affaire ci biir euh, politique bu am solo boobu mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu daal di ni kon nag su boobaa su ma defee su mu ni nag kon nag su defee su ma defee loolu ñi nga xam ne ñoo seq relation yooyu dañuy daal di commencé nag dundal war-war yeeg ak nan la ñuy fexee ba mbokkoo googu mën a gën a dëgër mën a gën a yaatu mu ne ana Aboubacar Sadiq Aboubacar Sadiq ci ñu àndoon ak yonent bi ñëw jóge Madina jóge Màkk ñëw Madina la bokk mu ne ko ana mu ne ana Aboubacar Sadiq mu ne ko maa ngi nii mu ne ko yow eh, sa mbokk mii dëkk Madina nu fekk ko fi mooy Xaarijatu bnu Zuhayr al Ansaar yi kooku yow moom laa la booleel yéen dem len fële ngeen concerté woo waxtaan seet ba xam nu ngeen di toje seen bopp ji nax ñooñu daal di nekk ay frère dem def seeni xalaat nu ñuy mën a jàppalante bu boobaa xam nga xaari ji daf koy laaj awa ah, waaw Aboubacar naka Madina naka Makka na ngeen def nak ah waaw ñu ngeen nu ngeen ñëwee naka tool ya naka nangam kooku daal koy rencontré lépp mu daal di xam moom xaarijitu nu Zuhayr al Ansari nan lay fan lay jaar ba dimbali mbokkam yooyu مدينة المنورة سبوبا في جنة تياتو من أنا أنا أنا عمر بن خطاب تيني أنا يرين تبلا بك من كو ماجني من كو يو ماجي لبولة أك عتبة بن مالك الأنصاري عتبة بن مالك في لنك كي دك بي دي كو باخ دي كو نخام يو مملا لبولة موي سفرير دمان جن سيد نجن كونسرتو بسيد نجن دي توجي سين بابو جنا ñoo tamit def noonu daal di ànd daal di isolé wu dem fële seet nu ñuy waxtaane ah koko tamit laaj ko muy utbanu ibnu Malik waaw naka Makka naka Jurga nu ngeen fa toge won nu ngeen fa amon waaw kan ak kan lu ñu indaale lu ñu lu ñu fa bayyi ba utbanu ibnu Malik xam lepp dal di xam fan lay jaar pour man leen jappale mu dal ne ana Abu Ubayda Amir ibn Jarrah mu ni ko maa ngi nii moom yonent bi koko ci ci ñi àndoon nak mom la bok ni ko yow nak la sa'd ibn moy sa frère ngeen dem set al ansari ñoom dekk fi ci Madina di ko ku ñu xam nga dem seet ngeen waxtaan yéen ñaar seet nu ngeen di concerté woo ba seet nu ngeen di toje seen bopp janax euh, ñooñoo tamit daal di def noonu mu daal di ni ana Abdurahman na Awf moom itam moo yonent bi ñoo àndoon mu ni ko maa ngi nii mu ni ko yow boole naa la Saad ibn Rabia mooy sa frère ngeen ànd concerté woo waxtaan seet nu ngeen di def ba situation bi euh, réglé ñooñoo tamit daal di ànd lëngoo dem seet nañu waxtaane nee na mu daal di neeti eh, ana Ousmane ibnu Affan Ousmane ni ko maa ngi nii xoolal Ousmane rek ni mu meloon màkkatal mu karrama alal ji mu yore woon bien yi mu amoon nga xam ne lu yonent bi mas soxla bu dee ngànnaay wala problème bu mën a am mu réglé ko mu àttan na jóg rek ànd ak yonent bi dem bàyyi fa lu mu amoon ndax bëgg yonent bi ak bëgg lislaam ñoom yonent bi laajte ko ana Usmaan na Affaan mu ni ko maa ngi nii mu ni ko yow maa ngi lay booleeg eh, Aws ibnu Thabit al Ansaari kooku mooy sa njaatige mooy sa frère seetal nu ngeen di concerto ba waxtaan. xam naa waxtaan mu neex ndax fekk na booba kële ci wàllu économie Ousmane la mu ca xam bari na yàlla dénkoon na ko alal kon bu dajee kii tamit ñu waxtaan noonu la leen lëkkalee ñoom yonent bi moom yonent bi kenn ku ci nekk mun la àndale diw àndale diw loole bañ ba ko defee ba ku ci nekk waxtaan ak kañu la booleel ba ñu génn seeni xalaat dem na ba ñi nga xam ni ñoo gàddaaye Makka jëm si Madina presque ñoo gën a nekk à sax ñu nekk Madina ndax ñàkkatuñu dara euh, dem na sax ba ci biir teraanga yooyu ñoo doon jëflante euh, dem na ba nitu muhaajiroon yëgatul mettitu tumuranke yëgatul metitu tukki yëgatul teqalikook say relation yooyu yëpp yëgatuñu ko ndax soulagement boo xam ne nii waa ansaar soulagé nañ leen ko جسنا انتساخ ديسان سعن بن ربيع الأنصاري مو هو عبد الرحمن بن عوف نيكو دما بغون سما على نيو خات كو تي ديغري نغا جيل لي ما جيل لي ني تولو لي تيمبي ماك يو كين با نيبل سمروم والله ديسان بي لولو امي عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف دالي كوني ديديت وخ دغ يالا يينا جي دوينا موي لي ولا تخ نان كو يامم دويول فابل يوبو دولا دوي ni ko dal tektal ma marché ba rek suma suñu dal nga tektal ma marché ba rek man xamna tout ci commerce ndeysaan ah mu dal koy tegtal marché ba lejeentil ko ba mu am fa place mu mu mu dal di koy jàppale tuuti ci financement bayiko Abdourahman ibn Awf dal di continuer ci commerce am fofu ci marché ba ba dir bu gàtt gàtt gàtt ñepp turam ci walu bénéfice bu yaatu ak tabaarakallaahu alal ju bari loolu nekk loo xam ne e, njàngale la moo xam ne am na ci diggante al muhaajiruun ak al ansaar li nga ciy jàngate mooy ñoom dëkkuñu ana man ana yow ñoo xam ne seen dëkkuwaay diggante bi mat na juróom-ñetti téeméeri kilomètre ñu jóge foofu ñëw ci sa dëkk di ay doxandéem imagineel tey bu doon tey ku gàddaay ndax sa méttitu dëkk wala sa jaaxle dem ci beneen dëkk boo demee ñu dimbali la jàppale la tey jii àdduna bi yëpp dina xëttaloo mel ni aljanna moo tax léeg-léeg ñu ni réew pays sous développé réew moo xam ne dafa néew doole dinañuy lim ba di ci limaale sax Sénégal Sénégal néewul doole wala bu néewee doole ñi fi dëkk ko néewal doole ndax li réew yëpp am am nañ ko waaw waaye bu fekkonte ni jikko yi defaru na ni ko mag ñi bëggee li fi yàlla def ci teraanga ñu gérer ko ci anam boo xam ni bëggee amu ci gourmand amu ci soxar amu ci iñaan amu ci égoïsme amu ci mooy man dong man dong maak sama doom ak sama jabar amu ci kon Sénégal benn réew du ko ëppale benn réew du ko gën a dund benn réew du ko gën a baax baaxle kon su ko defee jikko yooyu nag nga xam ni moo xaw a des ba mu jural leen ñàkk a yéeneente jàmm kenn ku ci nekk boo sañoon la ngay am yow rek yaa koy moom keneen du ca bokk boo sañoon lu sa moroom yor na ko ñàkk te mu ñëw ndax mu ñëw ci yow kenn ku ci nekk tey sa xëccoo sa coow yépp yépp yépp sa intérêt yi bopp moo ci gën a not bu la wàccee dem sa njaboot waaye koo xamul doo ko teral doo ko warmaal doo ko dimbali doo ko respecté moo tax toujours dinaay faral di wax ni mbaaxu réew mi man mbaax gu ma jaaxal la mbaax goo xam ne bala ngay baax dañ lay recommander nit ki ni la dem na na la seet si téléphoné la waa ñu bind la lettre wala ñu jàpp ci loxoom ñëw ni la kii sama nangam la dafa am soxla sangam nangam nga door a baax mais loolu du mbaax mbaaxu tricherie la kooku ruus nit ki la wala tricherie waaye bu fekkonte ni mbaax dëgg gi ñuy wax mbaax la intermédiaire yooyu sax man naa bañ a am branlon sax mën naa bañ a am da jóg rek daal di xam ni diw baax na nit ko yiw la su ma demee dina ma dalal teral ma te su ma demee su ma waxee dina ma déglu te dina ma dimbali mais kenn ñemewu ko kenn ku nekk dëkk ngaa koo xam ne nii mënal na la lu baree baree baree bare waaye ñemewoo dem directement te recommandé wuñu la ndax lay wóor ni boo demee te recommandé wuñu la doo xamul mbaaxam ak mbonam xam su ko defee nag googu mbaax du mbaax du mbaax gi tax eh, gi yàlla soxla mbaax gi yàlla soxla eh, sa loxo day silmaxa day làmb rek ku mu daj jox waaw sa loxo day silmaxa day làmb ku mu daj jox la ku mu da baax ku mu daj jàppale la kon su ko defee muhaajirun ak ansaar seen jàppalante googu ñu jàppalante te yonent bi bëgg ci loolu ndax moom la ñu dimbali su fekkonte ne réew yëpp roy nañ ko Sénégal ak feneen roy nañ ko jàmm rek am maa ngi dégg mbokk mi sànq bi muy nuyoo waxtaan ma am solo mu def di nuyu Sénégal maa ngi nuyu Tijaan yi maa ngi nuyu Laayeen yi maa ngi nuyu Murit yi su fekkonte ni dem nañu ba àgg ci boo ne maa ngi nuyu jullit yi rek ku ne ci sa bopp Tijaan bi daal ni jaratul ñu may segg Murit bi ne jaratul ñu may segg Laayeen bi ne jaratul ñu may segg suñu demee ba àgg foofu rek ci ngeen di jàpp ne kon réew mi tegu na ci yoon. waaye boo maa ngi nuyu mbooleem jullit fi mu ci biir te daal di wëlbati ko woo dellu ginnaaw daal ni particulièrement murit yi tiijaan yi xaadir yi yi boo ko waxulee nit ñi duñu kontaan te baat bi leen tënk ñoom ñëpp mooy maa ngi nuyu mbooleem jullit nga xam ne kon dañuy daal di dugg ci biir cadre boobu loolu la Cheikh Bachir Ibn Arabi doon ba muy firi xadis ba xadis bi yonent bi wax nii al muminu lil mumini kal bunyaani yashuddu baax la dafa wax ni yonent bi dafa wax ni jullit ak moroom ma dafa war a mel ni eh, ay tabax tabax yu ñu yëkkati étage jol-jol bu nekk lëng sa moroom bu nekk taqaloog sa moroom ba benn bu ci nekk tey jii boo noon con ndam yow képp defa mën naa am bu ngelaw lu rëy dikkee mën na laa daaneel waaye mënatu a nekk ndax danga koo taf ci sa moroom mu taf ci moromam mu taf ci moromam ba ñoom ñëpp ñuy jàppalante di dëgëralante mu ni jullit yi noonu lañu ñu war a mën a defante mu ne nag moom Cheikh Bachir Ibn Arabi bi mu koy firi mu ne eh, bu murit yi beroo fële nu nun ni tiijaan yi beru fële ni ñun lekk yi beru fële ni ñun rekk la layeen yi beru fële ni ñun rekk la nee na bu ca bu ca kenn dee bu ca tiijaan dee ab tiijaan a dee waaye ab jullit deewul nee bu ñu àndandoo nag ñoom ñëpp benn dokk benn groupe nag bu ca nit dee da ngay daal di ni jullit ba dee na ndax mënoo caa xàmmee kan la yow daal seen da ko dee ci seen biir rek waaye bu ñu defee ay kuréel nag bu boobaa di nga am ràññeeku ni quoi ah, waaw seen naa kuréel ba la féete ndajoor tiijaan yaa kon ab tiijaan a mu ne noonu ni nga koy misaale mooy ci tabax bi ni mu ko misaale ci tabax boo jëleen jaru jaru birig boo boolewul rek teg ko fenn soo jëlee marto dóor ci dañ naan toj na birig ba rek la ñuy wax ndax ay birig yu ñu dajale dong la waaye jamono bu ñu ko boolee ba mu nekk bâtiment nga jël marto dóor ca bâtiment ba dañ naan toj na tabax ba parce que ànd nañu nekk benn moom noonu la ko daan firee muy prix moo xam ne mu ama am solo la tabaarakallaahu yal na yàlla dolli ko wéral dolli ko jàppale boo ko defee itam tabaarakallaahu mun nu ne ci jamono boo xam ne bu ndimbalante amul ah du sotti waaw bu dimbalente amul jàppalente am bàyyente xel am kenn ku ci nekk nga jéem a delloowaat sa xel ginnaaw xam ni loo doon am na ku ko doonoon te doonatu ko foo toog am na ku fa toogoon te toogatu fa nga bàyyi xel loolu yëpp loolu dina ci am solo wax naa ko ci émission bi passé ma ni nit ñi ci bari gore wuñ bu ñu tàllalee seen loxo yàlla di ko ñaan ba yàlla may leen moo xam dañu ñaan loo sëriñ moo xam dañoo ñaanal seen bopp ba yàlla indi teraanga li ñuy jëkk def mooy daal di xëcc liggéeyum nday teg ni sama ndey ko liggéey loolu la ñuy bu ñu ko waxul it dinañu doxee doxeen woowu waaye yow muy wax ne liggéeyu ndey la am na ku la gën ndey fopp te bu xëyee dépense da koy të kon kay maanute sunu borom ak maam la doxale noonu donte liggéeyu ndey baax na waaye am na ku la gën ndey fopp te mënut a am dépense wala nga daal di indi barkeb baay waaw am na ku la gën baay fopp ndax baayam wàll yu la yàlla la sa baay du wàll moom mënut a am dépense kon bul indi loolu teg am na ñuy daal di bu teraanga ñëwee rek ñu indi xel mu rëy teg ni sama xelama ko may te am na ku la mën a jaay. ëpp la xam-xam fop dàq laa jàng fop ëpp lay diplôme te bu ñu ko dimbalewul ci dépense du lekk kon delloo lépp ci yàlla te rafetal mooy li gën tabarakallahu ju nattub jullit nag li sëriñ Moussa Ka wax rek nattub jullit day yokk ay maqaama mbaamu sippi ñaawteef bisub qiyaama xam nga wax ne sax ba ci nii la yàlla yéene waayem ci ay maqaama te mënu koo jëf ay nattu lañu koy xayma te bala laa wóolu ba jox la mbir ya nga muñ yen ba aw ci tànki mbir ya loolu la wax buur yàlla xarit balay musi baal ngir dara jaal ko mbaate muy ku ñuy baal waaw def ni buur yàlla xarit balay musi baal pour lan ngir dara jaal ko mbaate muy ku ñuy baal ndax nee na li yàlla yéene waayam ci ay maqaama te mënu koo jëf ay nattu lañu koy xayma nattu yooyu nag boo ko muñee yàlla moom yeneen bi wax na nee na bu la yàlla nattoo ci xañ la alal wala mu xañ la wér wala mu rey sa njaboot wala sax amoo njaboot nee na rusati na yomal xiyaam mu lay calculer di xisaab loo def ci lu baax ak loo def ci lu bon lay yóbbu aljanna rek kon tabaarakallaa li mu wax ne nattub jullit kon day yokk ay maqaama baa mu sippi ñaawte bisu xiyaama loolu lu am la ngi ciy liir benn xisa bu yéeme yéeme benn mbokk boo xam ne yàlla may ko alal alal ji bari lool mu toog ba yàgg mu ne ah moom daal dafa bëgg a dem ziar yonent bi sallallahu alayhi wa bu njëkk jël alalam di cëpp def ko or def ko wurus jël benn loolu ñu kamara def ci alal ji yëpp takk ko ci ndiggam ñu ngi dem ziar yonent bi sallallahu alayhi wa noonu muy demee nga xam ne tukki bu njëkk avion amul woon ak ak oto sax dañ daan dox rek ak war ndeke am na fu mu jàddoon doon dem gannaaw kër kamara ba tekkeeku des wad te yëgu ko nee bi muy dem bay fet setlu ni limu yoron wad na boba sori na trop mun ah man dal comme yalla ma tax jorul may wiñeku diko topi na dem top yalla rek bi mu deme ba def aja ba aj jeex mu ci wat bi mu delu see yëf yi gëna metti ndax li réeroon feñun yëf yi gëna tar gëna metti mu dema dema dem ba danaka dekk bi xajatu ci mu di topp guddi ànd ak soxnaam ak ñaari doomam yi mu am ni mi ngi dem mi ngi gàddaay daal génn dëkk bi ndax béréb boo fa nekkee am teraanga te yàlla nu ne la mane ne nu ne la ma demoon naa ziyaare kook maa fi dàq julleeg maa fi dàq woor ak du ma mooy yàlla kon waruma am problème yàlla bindoowul noonu yooyu concerné wu ko yafalu ma yasha lu ko neex lay def nde bu doon bu doon yooyu daf koy calculer am nay jamono màkka lakk raw yonent bi am na jamono mu lakk environnement ba yëpp lakk tout dernièrement lii xew mun naa bu yàggul ci at ki ngay xam ne yàlla yoonam woo ay nit ba ñu ñëw ñu préparer sellal seen yéene nga massacre leen ñoom ñëpp te yow yaa xam te kenn du ne pourquoi ndax yaa xam foo jëm ak ñoom yaa xam fooy mujj ak ñoom yaa xam loo leen dencal yaa xam it looy waajal ñi fi des bi mu demee te affaire bi metti lool lool lool mu ne ah man daal naa gàddaay topp guddi gi dem jabar ji ni ko foo jëm mu ne ko xaw ko nañ dem rek ñu ànd dem ba cib dëkk boo xam ne doxandeem lañu fa daal fay wàcc ba ñu fa wàccee yëf yi tar lool yëf yi tar lool tar lool mu ne soxna si xaaju guddi man daal nan demati mu ne ko fu nu jëm mu ni ko ba tey xaw ma ko nan dem rek ba fu nu yàlla walloo mbaa mu rey nu rek fekk soxna si booba mu ngi toll ci ëmb ba toll ci weeram mu ne ko ah, fii ma toll mënuñu woon a dallu ba xam lu yàllay def mu ne ko nañ dem mënatumaa toog xajatuma fi ñu andando yenu seeni bagage and ak seen doom ñu ndaw soxna ma ngi gus-gus ak ëmbam ñuy dem di dem ba fi ñu seeni ab dëkk bi ñu war dëngmal ba ne alhamdullilah rek wu mette metti daal di ak ab taw ñu daal di dëgg seeni tànk waaxu bu dëgër bâtiment ba ñu yam yem te muy tabax bu àggul ñu daw dugg ca bañ ca duggee dañoo dugg rek ndaw si commencé matu ndaw si matu di am doom di bittër ñi ku taw bi sotti ku seen kaw muy bittër ñi ko amul dara lu nekk lu leen féete kaw bi ndaw si mato ba doom ji ni uwee ndeysaan baay bi daal di koy jël teg ko à côté soxna si nag di tër ñu ko rek ni biir bi day xotteeku sama biir baa ngi xotteeku sama biir baa ngi xotteeku sama biir baa ngi xotteeku lépp mi ngi taw góor gi natt bu jeexagul ni mu mettee tant que jeexul doo am jàmm mu daldi di ne mi ngi daw dugg ci dëkk bi seet lu mu mën a wutal soxnaam pour mu lekk ndax jigéen bu amee doom biram day vide muy daw di ba yàgg mu seen làmp buy tàkk mel ni boutique la wala yu demee noonu mu daal di daw ak si may mayga la mu ne ko ndax am nga fi lu ñu mën a lekk mu ne ko man dey supp laa doon jaay te jeex na ñeex mi rekk fi des mu ni ko loo koy jaayee mu ne ko li des ci ñeex mi day mën naa la koo jaay ci téeméeri dërëm ak juróom fukk sept cent cinquante franc te moom booba moom waa ji mille franc rekk na ci poche bi xamul lu muy def supp bi rek ñeex mi rek mu ne ko tàngalal ma ko mu tàngalal ko ko defal ko ko ci benn leget mu jox ko sept cent cinquante yi wiññee ko nag ak leget gi di daw di ñëw pour bu ñëwee jox ko ndaw si mu tàngal ci biiram bi mu ñëwee ba jub bunt bi bay bëgg a dugg rek benn xeer teq ko mu daanu leget gi daal di xar sos bi daal di tuuru foofu nag mu daal di yenuy loxoom di yuuxu nag di yuuxu ca kaw di yuuxu ca kaw ba benn boroom kër dégg yuux yi daal di ubbi polonteeram ni ko yow lan la mu commencé nag di ko rencontré nag man dama nekkoon sunu dëkk ba ma fa nekkee am lii am laa ma jógoon di aji màkk alal ji ma yoroon réer ci yoon yi bi ma ñëwee di nettali ba àggal waa ji ni ko loolu rek tax na nga yàq nelawi nit ñi daal di xëccaat fenêtre am bàyyi ko ca mbedd ma foofu juste ndekete bi muy expliquer keneen ku ne à côté dégg na ko daal di ciy topp ba àgg daal di koy jël jël jabar ja ak leer baag doom yi yëpp rungu leen yóbbu leen këram aménager leen benn chambre bu rafet a rafet bu baax tegal leen fa ay tëdduwaay tegal leen fa lépp wan leen toilette yi ni leen kër gi seen kër la dal leen jàmm jàpp leen ni fii ngeen ne daanaka yéen ko moom bu leen fi dara naqari waaja fanaan ba bët setee borom kër gi woo ko waxtaan ak moom ni ko waaw yow loo doon liggéey mu ni ko man commerçant laa expliqué mu ni ko waaw fii de dëkk bi commerce dox na fi téema laa jox benn capital nga jéem a essayé tàmbaliwaat sa commerce mu ni ko boo ko defee day baax na mu daal di yëkkati ñetti téeméer ci jamono yooyu bu doon jamono bi xëy na mën naa am trente cent cinquante mille xëy na daal di koy jox momi tamit moy borom jom bu xeye dem ci marché ba bàyyi fa njabot gi soxna yi borom kër gi di len toppatoo dir bu gatt la ko def yalla dimbali ko mu am bénéfice ba capital bi ko waji lebalon mu yëkëti xaaliss bobu delo ko ko déssé déssé fondam nek ci lolu nak ba xelmi nak dal nak ba xelam nek ci ci siwaat nak dem sen dëkk nak ñibi fa mu dëkkoon borom kër gi nak dal di koy wo waxtaan nak niko ko waaw dama bëggoon nga nett lima nak sa jaar jaar nak dëgg-dëgg nu demee waa ji nettali sama commerce gi ma nekk dëkk ba ma nekkoon maa fa ëppoon alal alal jooju nag ma def ko ci sama benn kamara euh, lépp ma def ko or doon dem màkka bi ma ñëwee ba ci yoon wi ndekete wadd na ci yoon wi yëguma ci dara bi ma ko nemmi ko ma ni jarul wi ñeeku ndax yàlla laay wut ah nettali ba àggal bi mu àggalee rek waa ji ni ko ma ñëw daal di dugg ci biir génnee camara bi bi waddoon ni ko ndax du bii rek waa ji xam tëdd lu mat trente minutes daal di ximmali ko ni ko yow nit nga walla jinne nga wala loo doon mu ni ko walaay du ma nit laa du ma jinne Kamara bii yàlla dafa dogal ay at ginnaaw laa ko for waaye dégguma ko ko laajte yàlla mi dara tëwul nag bi ngay expliquer ca guddi keroog waa jooju te mu delloo buntam laa dégg sa baat ma xam ne yow la moo tax te it ma ñëwee condition yi ma la fekke bëgg naa laa teral te soo rek ma wax la ni ma for sa kalpe teraanga jooyu du mat bu tul da ngay jël sa kalpe rek ñibi wala nga ni lu ma la defal fala ko jëlé motax ma bayyi la ba sama yéene ci yow mat ma doora yëkëti sa alal jox la non la kooku ak mom gis nga loolu loolu moy jikko yu rafet ki nga xamni mom la yalla natum mu am natom te àndoon ak yalla ci dem metti na tarna waye ba yalla dikki xamna ni yalla dikk parce que inna allah la yu ya, la yudiu al muhsinin ki nga xamni tamit tabee nga yem ci koo xam ni li nga forte mu moom ko moo ëpp say bien fuuf nga denc ko pare jël sa alal yi bopp teral ko ci ba pare delloo ko ko loolu sang rek moo ko man yooyu nag mooy jikko yi nga xam ne nii mooy doxal àdduna bu ñu bëggee àdduna neex waxuma mu mel ni aljanna de waaye mu neex jikko yooyu dañu koy delloo siwaat dund ko bu ñu ko dundee rek yàlla dina dina dina wallu li li li li Serigne Cheikh waxoon bu ñu ko laajee ni ko waaw ah waaw mag ñi ñu ñaan nañu yàlla ba ñaan gi nangu te dëkk bi metti lool mu ne nangu na de ñaan gaa ngi ci kaw yi li yàlla yàllay xaar mooy xol yi ànd nekk benn bu ñu àndee nekk benn xéewal yi wàcc bu ñu àndul nag mu aj ko ci kaw ca la waxa woon ni xéewal bu ko ñëpp xëccoo mu nekk musiba waaye musiba it bu ko ñëpp nangoo séddoo ko ne am ca mujj nekk xéewal parce que doo sentir la ngay yëg nax lu tuuti lay doon kon tabaarakallaahu yooyu nga xam ne nii jamono laaj na delloo siwaat jikko yooyu delloo siwaat yooyu delloo siwaat xol yu rafete noonu te xol bu ubbeeku te yaatu day yéene ñëpp jàmm waaw day yéene jàpp day yéene ñëpp jàmm ahibba li naas maa tuhibbu li nafsi irham man fil ardi yarhamuka man fi sama nee na yéeneel nit ñi li nga yéene sa bopp yërëmeel ki nga man kele man yërëm la ki nga man mooy ki nga ëpp doole kele man mooy mooy ki lay xéewal yor sa lépp kon tabaarakallaahu ah ñi tànn yàlla tamit ñu tànn yàlla rek te bañ a bañ a bàyyi xam nga Xajaaj ibnu Yuusuf ku met la woon ku doy waar la woon dafa dajeeg benn arab yi di dàggee di dàggeeg moom di daal di ko invité ni ko wan ni ko kaay dama lay invité ñu ñu ñu añ arabi bii ni ko parce que daf ko wax ni ko halum ayyuhal arabi li natanawala taam al ghadaa maa ngi lay woo yow arab yi pour nga ñëw ñu ñu ñu ñu añ wala ñu reer ñu añ sax la arab yi ni ko daa nii man huwa akramu minka fa ajab tuhu wala fa ajib tuhu ni ko ku la gën a màgg daf maa woo ba pare te wuyu naa ko xajaaj ni ko kooku kan la mu ne ko allahu tabaraka wa taala daana ila siyaami fa ana saimu yàlla mi la gën a tedd gën a tedd ñëpp moo ma woo ci koor fii ma ne damaa woor kon kon baax na jéggal naa la tubaarikàlla xaddaaj ni ko tasuumu fii misli haadal yowma ala xari da nga nar a woor ci bis bu mel ni bis bi nga xam ne dafa tànk jër arab bi ni ko arab bi ni ko sumtu li yowmin ashaddu minhu xarran woor naa bis bu ko gën a tàng kooku moom mënumaa détourné xajaaj ni ko aftiril yowma wa sum xadan tee ngaa dog tey te bu subaa nga woor arab bi ni ko ايدمن الام امير ان اعيش الى الغد يو بور دال كون خم غني دينا دوندو با صبا بودي خم غا لولو دال واخم بودي يو ورنا دينا دوندو با صبا باي وور صبا واخما حجاج نيكو ليس ذلك الي فعلم ذلك عند الله لولو غما واخ نك موم دغ دغ نيكول سي مان لولو يالا رك موكو خم عربي نيكو نك كون فكيف tasaluni aajilan bi aajilin laysa ilayhi min sabilin noo ma mën a wooye ci lu gaaw loo xam ne la ko gën a yéex a ñëw amoo ca xamoo ca dara yàlla rek moo ko xam xajaaj ni ko innahu taamun tayib ah boo gisee yooyu yëpp am ci day ñam bi day ñam wu neex rek ma yéene woon la ko arabi ni ko wallahu ma atyabahu xabaazuka wa tabaaxuka walakin tayaba tayabatul aafiitu niko ma maa ngi lay xamal ni ñam wu neex wo nga may invité ni dafa neex mburu mi ki doon lak mburu mi neexalu ko togg gi ki doon togg neexalu ko xam nga kan moo neexal yëf yi mooy ki fexe ba ki koy lekk am wér ak am jàmm ji tax mu am tala lekk kooku moo neexal sa togg gi xajaat daal di wedam xamatul lu mu koy wax nag mu ni ko nag billahi ma raaytu misla hada ku mel ni yow musuma musuma koo gis fenn kon nag jazakallahu xeer yal na yàlla fay ay ca demal si yoon waaye tabaarakallaahu ku ànd yàlla mooy daggee noonu te ñemee ci nag bu ko defee yàlla du la fàtte mukk eh, maa ngi fàttali numéro bi eh, li ci des bariwul muy 88 628 10 95 88 628 10 95 waaw tabaarakallaahu yal na yàlla dolli ñu. dégg ak topp ah ñu ko daan waxee rek rubba xaamili fiqhin xayru faqih bari na koy wax ka lay déglu moo la gën a maitrise la ngay wax waaye yow la yàlla na too waxukaay gi ah comme wax dafa xew nag ah ñu wax rek dégg naa alxaaja Abdul Aziz mu baax ma daf daan wax ne lam bi wax sàjji na tëgg na de mu ne lam bi wax tëdd tëgg na ku noppi nag yoway daan mu ne waaye xanaa boog boo munta bañ a noppi nga yem ci qaala allah wa qaala rasul tabaarakallaahu la yàlla jàpp lañu ñu mais ñu dégg topp numéro baa ngoog 88 628 10 95 di nuyu nag wax dëgg yàlla ak a gërëm auditrice su rajo bi ak auditeurs yi di ñaan yàlla doon leen tawféex ñanu ca xam ñëpp nag ñi nga xam ne suñu xel takk na leen e, ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom Thierno Souleymane Sow ca Pikine nga xam ne suñu soppe la suñu lépp la ñoom Hadj Alimatu Mbaw ñoom Hadj Kumba Diop ñoom Hadj Menge Ndaw ñoom ñëpp ak dawaayir ya fa nekk yëpp xajjalooti li bu Cheikh Ibnul Arabi Hadj Dior Mbaye commerçante fële ca euh, Cité Fadia mercerie te di ku baax ku bëgg diine ak mbooleem auditeur ak auditrice yëpp daal xam nga rek lim bi yenn saay du du du yombe noonu suñu mbokk Mor Mor Mor والاجي بدر مباي نيب تبارك الله اك دائرة المقتسينة بآثار الآباء والأجداد نيب دائرة المسترشدين والمسترشدات السيد الشيخ محمد المصطفى سي المرشد اك دائرة الخير والمنة اك تبارك الله بيب دائرة منك بكين اك دائرة جالبة المراغب ميواكر الشيخ الخديم دائرة جذب القلوب tabaarakallaahu xayru diin ya fa nekk Cheikh Bachir Ibnu Arabi lii daayira xaadir ya fa nekk ak yu laayeen yaag ñëpp tabaarakallaahu ah ni ma ko waxee sànq rek su ma nit ñu comprendre woon damay wax rek ni mboolem julliti Pikine jullit yu góor yi gi jigéen yi rek mu gàtt waaye ku ne xam ne kenn ku nekk ah boo ko séddul ci boolam mu yaakaar ne xëy na du suur waaye li gën a ndël ndën li gën a yaatu mooy mbooleem jullit yi nekk Pikine ak soppe yeeg am gi jàmm yi ñëpp tabaarakallaahu yàlla defal leen tawfiix defal leen dégg ak topp bu defee nag tabaarakallaahu lu dëng ci wax ji rek nit moom moomatul waaye lu ci jub rek tabaarakallaahu yàlla ci mbaaxam moo ko jubal bi si des itam kilifa gi muy Cerno Hamidou Yoroban ñu gën a delloo ñaanal ko jàmm ñaanal ko yiw ndax rajo bi ah ñu bëree ñu ngi wax ne émission diine yi am na solo ndax ñi fi jaar ay borom xam-xam bëri nañu lool oustaz Sey ba ñoom ak ñoom oustaz Matijaan Wat ak ñoom oustaz Maam Góor toog ñoom Abdul Aziz Fall Imam Moussa Gueye ñoom Pape Makhtar Sylla ak artistes yi nga xam ne nii ñoom Cheikh Tidiane Ndiaye ñoom ñëpp nga xam ne ay borom xam-xam lañu yoo xam ne. wax dëgg yàlla ay mujahidun lañu ci maydaan bi ñoom ñoom ñëpp tabaarakallaahu di fi jaar ah seeni soppeek seeni am gi jàmm di leen eh, tabaarakallaahu déglu di apprécier seeni eh, waxtaan ak seenum njàngale su ko defee ah suñu technicien wax na ni lañu nu jagleeloon ci waxtu sëg na kon su ko defee ñu tàggu leen ba beneen alxames ak jàmm su dajee rek jéem a nam na bi waat mottali asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa